Macky Sall daal di toog nga ne mu dàq leen yéen ñëpp ci jamono bii euh, ba relation ngeen am ndax boo dee xool bi ngeen nekkee ci laay waat di yéen a fa nekkandoo woon xanaa miinante woon ngeen. Mhm. waaw président Macky. ah président Macky bi mu nekkee premier ministre. ku ko daan mobiliser. yow xanaa kon. mbubb yaa nga ne. am na ci boo xam ne dama ko denc duma ko bàyyi. 42 car lañ ko yóbbul Fatick. maa ngi Yacine mii ngay gis tey xëy fajar teel sol suñuy mbubb bu nu róole booba président Ablaye Wade di fa dem mu nekk premier ministre keroog Marème Faye moo ñu defaral ndékki defaral ñu añ Marème Faye ci boppam da daan fekk ñu toog mu dina feccal naan yéen sama jëkkër kon xam nga tey ñun dara safuñu ci. Ah, kon yéen yéen miin ngeen. Marème tey dafa waroon a ñëw dina jox sànqalu njëkkee Macky Sall dafa waroon a ñëw dina jox àllarbay Ablaye Wade ndax lu bu am na grâce à Ablaye Wade. Macky Sall diplôme relation fan la toll ni diplôme ingénieur la indi woon ci ablaay waat mu di ko fal di ko fal di ko fal ba tey mu nekk président de la république Macky Sall Ablaye Wade da ko fal président de la république nee ma li tax moo ko yóbbu ci sëñ Saliou ni ko ñaanal kii moom laa bëgg mu remplacer ma ñaanu sëñ Saliou du tuq du daw ba mu ko amee nag mu nekk Ablaye Wade nee na koo fal mu dof ndof googu dugg ko nag ndof ndofu falu dugg ko ba nangootu noo xam fi mu toll nii amatul yi amatul ak yéen benn relation. waa relation bu nuy am comme te ñun dàq na sunu papa jiiñ ko sàcc jël sunu rakk tëj génne réew mi ah lu des xanaa gas ñu bu nu xóol ñu suul ñu te loolu yàllaa ko dugalu déet waay kon daal président daal kan na su nga ne ah, yaa ko wan du samay kaane dama ne leen ñu wan gas ñu suul ñu loolu moo ci des ta yàllaa ko dogalul teguñu fii jaar naan ah, ah, ba Ablaye Wade dee na suul nan ko teg nanu jaat di waaye nag li ma ci jaaxal mooy ña tegoon jaat ja ñu ci bari tey nekkatuñ fi allahu akbar yàlla rek moo mën waaw yàlla rek a man de ñuy ñaan sama rakk ji dafa am jom dafa neex a xeexal dafa neex a àndal xale boo xam ne judd ci dignité judd ci alal judd ci man judd ci xam-xam ñu tëj la kaso nga ni nemm defoo dara yàqoo dara waxoolun la jéppee du dul toog ca kaso ba di jàng say xasida aka jàng sa alxuraan aka jàng olof ba gën koo miin gën koo mokkal bu Karim da ñëwee fii dina leen làkkal olof yu set ah. wecc yu leer naan yoo xam ne ñu naan Karim déggul olof yéen a ngi wax ak moom ay olof ni boo leen koy man bu waxee man xam man du ma wax français ah olof lay wax ak yow man olof laay wax di man koy wax ak man olof ngay wax ak man ay maa ngi lay nuyoo di wax de mën na yooyu Karim ma ne la lépp la mën a wax ci olof ndaxte nag Sénégal gii la yaroo mën na laax bàjjan fi mu ne dala naan bàjj man la Sénégal gii la jànge ba am bat Karim Wade du ma ne bàjjan sama mag la may wax. ah mag la lay wax. waaw ndax ñoo bokk baay na. looloo tax sama mag la may wax. waaye Karim olof ci set wecc gis nga bu bis bu ñëwee senegaal gii. Hmm. bis bu nee cëpp. dina am juróom ñaari fan yoo xam ne oto du daw cortège Karim Wade mooy bëgg a dugg Dakar mu tëkku. laa ilaaha illallah tàccu leen lool déggal lool. ah dëkk bi de yëngooti na bàjjee na wax nag. dugal nga ko léegi ci say kàddu dama ko doon dama bëggoon a bàyyi ba ñu yegg si ca rek ñu laaj la ko ndox ndax mënuñoo ñëw ba fii ngay jigéen te loolu di coowul jigéen muy Ndella Madior Diouf nga dégg coowam euh, tey yow loolu ban jàngan nga ciy def. man daal Ndella Madior wax dëgg yàlla man bu ma waxee rek man sama wax man yedduma ko ndaxte moom comme te dafa am ambition. ni day jël ay xale yoo xam ne dañ leen a naroon a rey wala dañ leen a war a dañ leen a nar a sànni ndax bis bu nekk nga dégg ñu lëmas liir sa sànni ci mbalit mi rey ko sànni ci mbalit mi kon nag moom bu nee dafay dafay def loo xam ne day tax ku bëgg a sànni doomam ñëw ci moom mu taxawu la nga am doom mu yore ko waa booba ana état booba ana Macky Sall booba ana ministre yi mu fal ana ministre de la femme ana ministre de la santé ministre yi ñoo ko seetaan ndax xam nga ni lu mat juróom benn fukki liir benn nit mënu leen a yor di leen dundal te liir kenn ku nekk ci yor benn xam li muy lekk bu dee potu niir si benn liir une semaine bu nekk mën naa lekk potu niir si te moom la ñuy nàmpale bébé yi bébé buy soog a juddu nga yor ko kon dee la def na effort ci doomam yi de def na ci efoor état moo ko seetaan ndax nag nga nekk cim réew war a ubbi lu doy noonu war ngaa dem ci état wut ay kayit ba nu may la ay kayit muy autorisation war nan la koo may fi nga koy defit dañ koo war a seet ba xam ba xam lii eh, jaadu na fa wala lii jaaduwu fa waaye ndee la da daan génn ci média yi de tudde naa diw doom tudde naa diw doom tudde naa diw doom tudde naa diw doom ku ne tudde na la doom état di ko seetaan ndee la yuuxu na ci tele bi ne doom yi jaaxal nan ma amatuma lu ma leen dundale ku am loo ma dimbalee na nga ñëw ndax tax nañu ñu jóg ba ma yuuxoo ni doom yi jaaxal nan ma mënatuma leen a dundal booba lan waroon a jóg dem seeti ndee la ba xam doom yi lan la mag mën naa muñ xiif waaye xam nga ni liir bu xiifee dee ñu seetaan ko nag tey ba scandale bi ñëw ñu jàpp ko tëj ko waaye état anañu ñoom kenn mën leen a jàpp de waaye ñoom la ñu waroon a jàpp ndax ñoo ko seetaan ba ma egsi fii Ndella dafa dem ba am dépression ndax doom yi. benn gis na daal xel mi daa mujjee dem. ma ne la Ndella keroog bi muy wax fii ba yàgg mu naan lu ma doon wax man te ca laa nag sama attention est-ce que Ndella mi des naa des naa xelam ndax kër gi nag du ko tudde woon kër yërmande waa bu demee ba yërmande ba yóbbaale ko nag ku ko tooñ état la. réew mi li ñuy seetaan laissez-passer dafa bari lanu war a seet duñ ko seet gis nga bu benn kaar daanoo ñu xëy génne communiqué ni kenn dootul surcharger oto oto dootul daw heure bii oto dootul yëpp bagage yu bari bu amee fukki fan ak juróom oto yi romb la di jol-joli oto yi romb la surcharger kon état ci boppam moo war a xam ne moo war a taxaw moo war a taxawu askan bi lépp da ngaa jëlaat rek daal koy delloowaat ci état. man dama koo delloo état te ndeela man dama koo yërëm man dama koo yërëm man parce que damaa xam ne li mu bëggoon a def ak li ko ci fekk dafa doy waar te man li ma jaaxal mooy senegal bu problème amee kenn ku nekk génne sa wax ju ñaaw waa li tax waxuñu ko woon avant lii li tax demuñu woon ndeela bu dee fekkee ne day def lu bon. ñu taxaw ne moom kat lii muy def nangam ak nàngam ak nangam war nañ cee wax waaye dañuy bànn bàyyi ba scandale ñëw say emple waaye taxaw fii say noon taxaw fii say ku ne taxaw di wax lu teewoon ñu wax ko avant lii di am